Toujours dans votre scandale du jour de ce 2 novembre 2023 dama bëgg ñu seetaani benn vidéo ba noppi ñu daal di koy commenté du ma ci argumenté dara nañu seetaani vidéo ba dellu si. ñi ngeen gis de Lacoste bu jaune bi doomi Ousmane Sonko la Fi nga xamné fi la taxaw moy buntu keur Ousmane Sonko. lii mi ngi doon ci bisu concert u boobu nga xam ne doon na fi am waaye dama am lu ma leen bëgg a wan ngir ngeen jàngat ci yéen bi gis ngeen doomu Sonko bi bi mu génnee garde yi ci boppam ñoo koy dugalaat ci biir kër gi ngir mën a assurer sécurité pourtant baayam moo woote manifestation pourtant ay doomi jàmbur la woo waaye gis nga buntu këru Ousmane Sonko sax mayuñ ko mu taxaw fi ngir ñu mën ko jox sécurité bu doy alors que jamono boobu bàyyi mi ngi mi ngi woo toujours doomu jàmbur yi ñuy wàcc ci mbedd mi di déggu grenade yi lii ku mu yeewul te ngay ndaw dootoo yeewu. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bii ngeen xamante ni seetaan ngeen ko ngeen gis ci vidéo bi ki sol Lacoste bu jaune bi génn taxaw ci buntu këram. di doom ci Ousmane Sonko ginnaaw bu Ousmane Sonko woote concertu casserolam muy concertu xërëm concert bi nga xamante ni ay sëriñam ak ay xutbu zamaanam ak ñoo ko deret bu bari te concert de casserole créé fi beaucoup d' ba deret bu bari tuuru fi néna yeen yéen génn leen ngeen tëgg concert de casserole mom ci bopam domam bi mu génnee di teug ay garde corps dañuy jëlat dom ji duggal ko ci biir kër gi bañ ko mu teug concertu casserole yeen ñi leen di teugalo ay concertu casserole ngeen koy def alors que domam ay garde corps am ko bu mu tëgg concertu casserole je crois que li dafa doy seuk comme jangat nee leen dembu motax ñi ñu naan tey ñu bëri bu mouvement bi amé engouement bi am ñu déglu ni ko olof jay do xé du taw ñuy fobéré dañuy bayyi ba mu taw ba sewet ñi indi suñu pierre fobéré leen ba mu set yeen ngeek seen bët yeen ngeek seen xel ki leen di digël sangu na fekk mom mu sangu ba paré ki mi ngi leen di digël concertu casserole yeen xalé yi ngeen genn gaddu seen cin gaddu seen bol nek ci mbéd bi déjà yeen ngi def tapage nocturne di di tere ay nit nelaw yéen a ngi tooñ ay doomu aadama am na koo xamante ni bañam mi ngi métti am na koo xamante ni daf feebar sa digganteeg moom aq bi nekk sa digganteeg moom su la ko baalu rek yàlla du la ko baal ndaxte yàlla nee na mën naa la baal lu nekk mais sa aq bi nga am sa digganteeg sa doomu aadama moom kese moo la ko mën a baal moom doomam mu jël ko wutal ko ay garde corps ñu protéger ko ba concert casserole bu amee ñu dugal ko ci biir këram yéen ñu bàyyi leen ci mbedd bi ngeen di def ay yëfi golo di def ay yëfi dof kon je crois que lii jàngat la ci képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo Sénégal ba jàpp ni ko Ousmane Sonko bi ci lu mu leen di woo dëgg la mooy li may wax rek ku laa ngay laax jaay da ngay laax lekk Ousmane Sonko lu mu leen di digal du ko digal jabaram. bu ko digal domam bëggul képp koo xamante ne dafa taq ci moom wala mbokkam nga koy def kon tu ngeen nit su leen di def loolu loo xamante ne moom du ko def mooy li may wax souvent rek ndab boo xamante ne ku la ci yàkkal doo ko lekk bu ci yàkkal doomu aadama donc il faut d'abord respecter la personnalité et l'image de la personne avant d'insister les autres à faire des choses yoo xamante ni yow si sa bopp gëmoo ko. jërëjëf. fi wá